Aïcha yëpp su ko nee baax gën a ko la bonsoir tous et à toutes vous êtes en direct sur Leral TV dans Leral Hip Hop voilà tey nañu am plaisir ñëw fii ci Arena voilà ñëw fekkee acte 2 TRG show donc ñu waral benn conférence de presse donc voilà initié par euh, Sénar Vision à la tête voilà Moustapha et toute la team ñu war a ñëw nag. faire voilà une conférence de presse passer à la signature des contrats pour xool voilà la génération bi nga xam te ñoom ñoo war a décembre incha allah donc ki ngeen gis nag droite elle n'est plus à présenter elle s'appelle Eve Crazy donc Eve Crazy yaa ngi en live on TV. <laughs> salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp euh, di leen ziar c'est Eve Crazy Moussou Kendo from Bignona. Eve Crazy mise à part que ni am na loo xam ne ci commentaire lan moo waral sa présence tey fii ci Arena. voilà TRG show moo tax ñu présent fii di remercier Tafa comme ni nga ko waxee muy nit ku baax et on a besoin de ça soxla nañ benn cinquante mille Tafa biir Sénégal pour euh, avancer lool ci ñu musique ndax taaral na ko wax dëgg yàlla loolu amatuñu ci benn sikki sàkka daaw yàlla na nice ren ñu koy defaat aussi di sant yàlla ci li ñu bokkee ci euh, sélection bi ndax sélection bi sa yow sax xam nga ni dafa nice xale yu taxaw rek la jël donc ren dañ koy représenter ñu make show bu en parlant de sélection juste rek par rapport à ça ça te fait quoi toi en tant qu'artiste féminine nga parmi tous les artistes féminines qui sont dans au, Sénégal yow ñu choisir nga bokk si ñu ñu choisir ça te fait quoi. ah c'est un plaisir et yow xam nga man xam naa je fais partie des meilleurs pour ne pas dire je suis la meilleure. noo ko mel gaa yi di xaw waaw. <laughs> mi ngi nii nag am na loo xam bëggoon ñu wax ci on aura l'occasion de faire une émission. pas de souci voilà entière sur sur TV. Euh, Lat Suwar bi mooy ngeen suivre kii sama xarit la sama doomu ndey la muy nit ku baax di def lu am solo ci dëkk bi <laughs> force à toi. ok merci beaucoup voilà mi ngi noonu elle c'est Musikendo voilà son nom d'artiste est Crazy nekk voilà une artiste féminine boo xam mi ngi def job bu doy waar donc après ça bon dañuy xool wan bàyyi woon puisque gars yi guñ ma xool. tremplin. baax gën a cool lui il présenter parce que voilà il fait partie de la de de la famille mais surtout voilà de moi en tant que jeune en tant qu'animateur voilà voilà c'est mon frère du cadre hip hop cadre rap quatre artistes c'est un frère di parce que voilà dund nañ ko man ak moom Rifu su gënee baax yaa ngi en live daaw sa kër Leral TV tey ñu am plaisir daje fii ci ci arena pour commencer presse bi. waaw macha allah ça fait toujours plaisir yow ma jàkkaarloo ak yow donc euh, voilà waxtaan si si dara wala gisante et tout parce que sama xarit nga loolu nekkul tey démb la donc comme ni nga ko waxee rek leeral moom sama leeral la ndax fii la lépp leeree. donc voilà tey nag boo ñu tase woon fii si lancement wu TRG show deuxième édition bi et vraiment ça fait plaisir gis fi presse bi yëpp mais aussi sa fait plaisir gis fi leeral aussi gis gis la fi yow it parce que am nga sa wàll loo xamante ne ni vraiment tey tu n'es plus à présenter tey bu ñuy wax si hip hop gaal seen bu jaaree si yoon rek yow bu ñu lim animateurs yi fi gën a taxaw moment bi yow si nga bokk donc sa fait plaisir souvent ngay gis. gars yi di jox cër l'homme qu'il faut à place qu'il faut. waaw am na solo en tant que rappeur ton talent n'est plus à à à expliquer ou bien à mais ça te fait quoi parmi autant de rappeurs qui sont Sénégal nga bokk ci ñi nga xam tey dafa sélectionné Sénégal Vision ah, ni ma koy waxee chaque fois affaire yi moom ñun mënuñ de peut-être dañoo am chance su génn donc dañoo am chance bokk ci parce que léegi on est au vingt-et-unième siècle léegi boo yëpp dañoo rap. peut-être problème bi mooy peut-être ñun ñun am nañ benn plus mooy gars yi xam nañ ñu xam nga lool kese la et tout mais ce n'est plus même un problème de talent léegi booy trois ans la ñuy rab gën la taxaw. waaw mooy mooy kontaan si yow xam nga kontaan si yow kontaan si yow kontaan si yow kontaan si leeral aussi di wax ne waa waa waa waa waa Sénégal TRG show baa ngi ñëw. aussi di kontaan waat beneen contentement mooy maa ngi gis sama ménageur Bathie Sarr gis nga ko ne xoolal maa ngi ko. gis naa ko mën nga kontaan. parce que parce que sama xarit la. waaw ah, nekk ak beneen jeune boo xam ne voilà en train de faire son chemin booy boo xam ne dafa jóge fépp voilà mën naa ni xam nga rajaxe affaire yi donc mi ngi ni il s'appelle Talbi voilà nekk un jeune hyper hyper hyper hyper méga talentueux donc Talbi yaa ngi en live en direct sur TV fii ci arena waaw maa ngi lay bëggee bu baax di bëggee téléspectateur u leeral TV yëpp xam di bëggee waa Thiès yi di bëggee ñëpp ñu fi teew tey. taal bi étant jeune nga nga am lu bëri loo war a wane wane déjà nga am facilité wu tey bind am facilité wu tey nga ñëw hip bi gaa yëpp joxe nangu sa talent et tu fais partie des rappeurs qui sont sélectionnés satisfaction moom lu mu lu lay def. waaw man moom damay wax a chaque fois que ni damay damay gën a motiver rek si sama liggéey quoi parce que man man moom du ma tricher quoi bi liggéey la quoi. genre dëgg la talent am na lépp am na parce que taal bi am na talent am na yeneen da ngay lim ay fukki talent tey fii nii boo xoolee affaire bi ñu si bokk yëpp ay talent lañ. tu comprends donc affaire bi tamit liggéey si la mooy focus xam si li nga nekk xam ni am na loo yor te da nga ko da nga ko da nga ko war a teg si table bi aussi war a war war a war a liggéey gën a wane sa liggéey gën ko fësal te loolu dafa laaj benn liggéey bu garaaw si ginnaaw donc ñun dañuy gën a focus rek di si gën a neex waaw. bokk ci artistes yi nga xam ñoom ñoom ñoo war a projet TRG show bi lan lay def ci taal bi lan la koy yokk lan koy gën a motiver. waa d'ailleurs di rafetlu initiative bi ah di rafetlu initiative bi d'abord di si bëggee waa team Sénar Vision bi yëpp ba si ay benn gars yi yëpp xam nga waa team Sénar Vision bi yëpp di leen wax que ni xam nga initiative initiative bu cool la xam nga la rek pour ñu ñëw. war si war si participer war si joxe suñu touche di si woo waa yëpp tamit di leen wax que tamit seen doom si benn affaire. ayca na ñëw gën a gën a supporter. ayca bëgg ci yow ayca moom jaajëf frère. yëpp ayca mi ngi noonu kooku mooy taal bi gars yi dafa mel ni voilà am na gars yi war a ñëw dañoo war a dem xool voilà accueillir leen après ñu dugg si biir assister voilà la conférence de presse proprement dit. Euh, préciser effectivement que je viens représenter euh, monsieur la SOGIP Mamadou Faye C'est véritablement avec bonheur que je sacrifie à cette tâche euh, parce que au-delà du caractère officiel, j'ai à côté de moi un frère. Monsieur le ministre de la Culture, monsieur le directeur de Scène Art Vision, chers amis de la presse, honorables invités, j'ai l'honneur et un réel plaisir de vous accueillir au Dakar Arena pour la signature du contrat relatif au TRG Show que vous avez bien voulu rehausser de votre présence, Monsieur le ministre. La signature de ce contrat qui nous réunit aujourd'hui marque le début d'une collaboration que nous espérons dura entre la SOGIP et CNR Vision. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir cette deuxième édition du TRG Show, un festival de musique qui permettra en, qui mettra en lumière la nouvelle génération et la richesse du hip-hop sénégalais. Cet événement qui coïncide cette année avec les ans du hip-hop constitue une activité culturelle phare dans une infrastructure à forte vocation culturelle. Réalisée et exploitée par la SOGIP sous l'égide de l'État sénégalais, le Dakar Arena, est une infrastructure emblématique, modulable, polyvalente, d'une capacité d'accueil de 15 000 places, dotée de toutes les commodités nécessaires. Monsieur le ministre, en entrant tout à l'heure, me faisait une confidence en disant que le président euh, se demander pourquoi on n'a pas encore une infrastructure culturelle de, grande taille à la dimension de nos artistes. Et on a torqué le Dakar Arena était là pour ça. de Dakar Arena, c'est plus la culture que le sport. Et ce qui fait vivre, ce qui entretient Dakar Arena, c'est surtout la culture. Et c'est un hub événementiel qui permettra, en tout cas, de laisser une empreinte de, de nos artistes à travers le Sénégal et à travers le monde. Réalis donc, euh, nous sommes donc ravis de l'organisation de cet événement d'envergure qui transformera sans nul doute le Dakar Arena en une plateforme vibrante où la jeunesse et le hip-hop se rencontrent

Le flambeau du hip-hop galsen est entre leurs mains parce que sans eux, on ne parlait pas du hip-hop aujourd'hui. Donc big up à eux et big up aussi à Moustapha d'avoir pris l'initiative malgré tout ce qu'il entend et tout ce qu'il traverse. Maintenir ce projet en vie parce que c'est très important pour la continuité de la carrière de tous ces artistes-là parce qu'on a besoin de promoteurs comme nous. Donc, euh, dès que moi, j'avais commencé déjà mon émission à la radio depuis c'était pour donner un coup de force à tous ces gens d'artistes-là qui sont et on n'en parle pas. On ne parle pas d'eux et il faut aussi essayer de soutenir. On a commencé avec le Big City Battle à la piscine olympique. Des artistes comme El, euh, No Face et tout là, ils ont tous vu le début de la carrière à travers nos événements. Donc, euh, qui a continué jusqu'aujourd'hui avec le Calcène Hip Hop Awards On a ce qu'on appelle un Monsieur le si vous ne savez pas ce qu'on appelle un cypher, c'est un groupe d'MC qu'on rassemble et artistiquement, ils vont prouver à l'audience qui est meilleur ou qui peut faire mieux. Je ne dirais pas le cypher a fait la carrière de beaucoup d'artistes, mais euh, ils, les, ces cyphers-là ont mis la lumière sur beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont réussi à travers cela maintenir quelque chose qui va les aider à poursuivre une carrière au niveau international ou à un niveau professionnel. Donc euh, le travail DRG faire sa part, Galsani Popos va faire sa part, Inch'Allah le 4 novembre. Et d'ici décembre, on va encore remettre sur d'autres programmes qui vont essayer de mettre la lumière sur ces trucs-là, et qui est très important parce que ces artistes-là ont besoin. Ils ont besoin de ça et qu'on mette euh, la lumière sur eux, sur ce qu'ils font, et même ces membres aussi de la presse qui sont de faire un très bon boulot dinañu caméra ñëw buuxante pour ñàkk bekk yooyu noonu yëpp c' très important il faut toujours soutenir la presse parce que sans eux le monde ne pourra pas toucher à nos informations à ce que nous sommes en train d'essayer d'accomplir def loo xamante ne da nga def benn boo xamante ne dafa amoon solo ci bi bopp parce que tolloo nañu benn jamono ku ci nekk da nga doon mais tey li ngay def dafa nekk loo xamante ne Sénégalais yi dañ ciy gis seen bopp seen bopp ku nekk gis sa bopp parce que li nga teg fii dafa rafet rafet na rafet boo xamante ne tey bu ñu ne woon euh, hip hop dañuy am benn coupe d'Afrique bu ñu organisé boo si jëlee kenn mën na représenter Sénégal te mën na indi ndam le Sénégal ndax c'est des boy qui sont très très talentueux ay boy am njëriñ la donc nag di nag TRG show tey muy coiffé comme ni ko waaye ni di tey boo xoolee ku ci nekk suñu yaa ngi si sa domaine boo xamante ne tey lépp hip hop moo ko tënk show mi cancer bi bokk woon si lii fii si moo neuf neuf feeram malal euh, pareil ku ci nekk si këram tey année bii aussi boo xoolee lépp luy tourné waat ci hip hop ñu jëlaat ce qui sa bi nga xamante ne moom mooy révision bi am chaque année euh, place de si teg ko si loxo daa benn show ñu def ko mu nekk show of the year donc yooyu si yi nga xamante ne si cadre hip hop mais je pense que ne tey bu ñuy def ñun euh, ak suñu doole dañuy soxla koo xamante ne tamit daf ñuy wan loxo parce que loolu mooy loolu moom mooy njëriñ bi parce que boo nekkee ci benn affaire pour def ko parce que ku ci nekk si ñun mënoon nga toog sa kër ne def naa sama waar pare naa ci sa yoon du nekk ci xale yi mais boo gisee tout le temps ñuy xeex pour xale yi pour xale yi di pour xale yi def lu nekk pour xale yi c'est parce que dañoo am yéene ñoom ñoo fekk suñu si ñu nekk ba pare dépassé ñu si. tu vois ça fait plaisir de voir que les choses avancent que nouvelle génération bi mu ngi tenir flambeau bi day baax tamit day baax tamit ñuy leeral dañu ne tontu Monsieur le ministre, l'année dernière, on avait été reçu par le président de la République. ay spéculation yu bëri ñu fi génn ñii di bind naan hip hop bi dañ leen jox passe hip hop bi dañ leen lii je crois que monsieur le ministre était là présent. Le DRG Show est allé rencontrer le président comme les transporteurs rencontrent le président comme les lutteurs rencontrent le président comme les éleveurs rencontrent le président man bi may ñëw fii dama jënd essence sama essence doon waaj a ci essence boobu y' a 18 pour cent qui vont dans les caisses de l'État loolu mooy fay monsieur le ministre loolu mooy fay monsieur le président loolu mooy fay palais lu tax bu ay Jay-Z Maison Blanche ay Kendrick Lamar di dugg Maison Blanche ça n'a pas de problème là je m'adresse à la presse hein mais si c'est le hip-hop ñu ne problème ba pare ay passe le TRG show a été soutenu quand le TRG Show a été soutenu. Tafa, quand il nous a payé les cachets, il a vu, il a trouvé normal de nous augmenter suñu ay cachet ci la yëkkati ku nekk un million jox la man Idi moo ma jox un million président de la république joxuma paas te bu ma joxoon paas que sama xaalis la chaque année on gagne des marchés avec Orange avec CMS on paye des taxes de qui vont dans les caisses de l'État dafa mel ni nga fay un million ñu yëkkati dix francs jox la mu bëgg a poser problème ñun dégg nañ ci lu ne gars yi ñu xalam je vois ici des têtes qui commentent du n'importe quoi je crois que comme ni nga ko waxee tontu du fa wax tey suñu kilifa bu toogee day baax ñuy rétablir yenn vérité yi hip hop Galsen lu ko tardel détail hip hop Galsen lu ko tardel iñaan hip hop Galsen lu ko tardel monsieur le ministre baal ma c'est de je ne suis pas présent damay xalam non ñun année bi bokkuñu mais du tee on soutient grand bi dama ko ne boo ma woowoon pou taf affiche barke Maulana Cheikh al Islam ma dem taf affiche parce que daf koy dafa yàgg faay pour hip hop bi malgré des fois on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses hein des fois dañ koy waxante on n'est pas d'accord sur énormément de choses tu vois mais waxtu su il faut ñuy soutenir nañuy bàyyi détail taille des artistes comme Réma, ils sont en train d'acheter de, des appartements à Paris. Ils sont en train d'acheter des appartements à Marseille, aux États-Unis. Ils sont en train de remplir le Madison Square Garden. Nous, on est là, real, fake. Qui aime le palais, qui aime le palais. Ni nous, il monopole, ni il monopole. Mais Bob depuis 1996, je suis en train d'entendre ça. Les meilleures nouvelle génération, du moins, vous l'avez dit. mais wan wan nga mouvement hip hop bi que c'était important que tu sois présent ñu ngi lay jaajëfal ci loolu bi jaajëfal tous ces directeurs yi nga àndal muy euh, le directeur de Douta Seck la directrice des arts qui est une femme magnifique qui est très attachée aux cultures urbaines. Magnifique dans magnifique, elle est, artistiquement magnifique. directe parce qu'elle est la directrice des des arts di jaajëfal Mouhamadou Lamine Sow suma grand frère la parce que je suis très ami à son à son frère le ministre de l'urbanisme monsieur Aliou Sow qui est un ami de très longue date avec qui j'ai cheminé comme j'ai cheminé avec le ministre comme j'ai cheminé avec le ministre Aliou Sow qui est un ami Et j'assume effectivement mes amitiés, quels que soient les paradoxes, quelles que soient les contradictions, parce que l'amitié est beaucoup plus forte que tout. Donc Tafa, je te remercie énormément. Je te remercie d'abord parce que nous partageons le même quartier et que ton frère et mon ami Zenga fait partie du bataillon blindé et il n'aime pas d'Abrem. Et pourtant, tu es son frère. on a tout fait ensemble il continue d'être mon ami donc Tafa jaajëf jaajëf parce que euh, ce que je trouve très très je salue également toute l'assistance tous ces acteurs du hip-hop entrepreneur comme artiste mais je suis très honoré parce que je trouve que ton idée est, est parfaite connecter le TRG Show aux ans du hip-hop moi j'ai j'ai un an de moins que le hip-hop, je suis presque jumeau avec cette culture, cette belle culture. 50 ans de hip-hop, c'est un patrimoine. Et patrimoine, un patrimoine, c'est quelque chose de très fort, de quelque chose à sauvegarder. Il est important de rappeler à tous ces jeunes que le hip-hop de sa naissance aux États-Unis, en passant par la France, en passant par le Sénégal. Nous l'avons épousée parce que c'est une culture qui nous a permis de nous exprimer. C'est une culture qui nous a politiquement éduqués. C'est une culture qui nous a donné du travail. C'est une culture qui nous a permis de nous former. C'est une culture également qui a permis, permis de susciter à nous euh, la création de notre propre emploi. Parce que moi, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours travaillé pour la culture hip-hop. Et quand on parle de culture hip-hop, on parle de la communauté, on parle de la solidarité, on parle de sa, de, de sa contribution politique. Parce que le hip-hop a donné la parole à des jeunes. Là où les syndicats n'ont pas pu porter la parole du peuple, le hip-hop l'a fait. Le hip-hop également, c'est un héritage social parce qu'il a, impact, il a socialement impacté beaucoup de jeunes parce qu'il a pris des anonymes pour en faire des personnes importantes. Je parle de, je parle de Tupac qui est né en prison et qui est devenu finalement cette figure emblématique. Je parle de Sambo Pesi ou de Ngaka Blende ou de moi-même qui vient de Baila et un quartier anonyme de Dakar. Anonyme, inconnu, presque incélèbre, enclavé. Mais le hip-hop m'a révélé au monde et j'ai révélé mon quartier au monde. Donc le hip-hop nous permet cet aspect du, repré de la représentation. Nous sommes des députés non élus, mandatés par nos quartiers pour porter la bonne parole. Mais porter la bonne parole, avoir des contradictions avec l'État, avec le politique, ne veut pas dire nous mettre en adversité avec les politiques. C'est pourquoi c'est là où le projet de TAFA est intéressant, parce que c'est un projet qui relie ces infrastructures aux activités de jeunes. Parce que quand l'État crée une infrastructure et que cette infrastructure est inanimée, inoccupée, cette infrastructure, son existence n'a pas de sens. Il faut donner, parce que ce projet continue à donner, contribue à donner du contenu à l'infrastructure. Il faut le faire pour le Grand Théâtre, il faut le faire pour Arena, il faut le faire. Le Mbalak l'a fait. c'est pas pour dire qu'on est en adversité avec le mbalax mais le mbalax l'a fait le hip-hop peut le faire parce que c'est un c'est une culture très appréciée et faite par des jeunes et ces jeunes-là sont plus nombreux en termes de pourcentage par rapport à ce qu'ils représentent démographiquement le hip-hop c'est aussi cette dimension artistique parce que 50 ans le, le hip-hop pourrait mourir au Sénégal il est mort en Côte d'Ivoire s'il s'il survit au Sénégal, c'est parce que les acteurs que nous sommes, artistes, entrepreneurs, continuons à, à porter des initiatives et ces initiatives-là ont impacté la vie de beaucoup de jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils ont un statut. Ce que les jeunes cherchent, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas forcément de l'argent. L'argent, c'est très important. Bamal l'a dit, l'artiste ne cherche pas l'argent, l'argent le trouve. L'artiste doit se préoccuper de sa création artistique. Et le hip-hop doit aussi assumer sa marginalité. Ce n'est pas pour rentrer en conflit avec l'autorité. On n'existe pas, pas pour rentrer en conflit avec l'autorité. Il y a des passerelles qui existent. Aujourd'hui, une jeunesse qui est là, qui a un discours politique, qui a un discours social, qui a un discours artistique, est en face d'un ministre. Ce qui veut dire que ce projet crée une passerelle entre l'institution et l'autorité, entre l'institution et plutôt la jeunesse. c'est aussi positionner le hip-hop dans l'actualité. C'est positionner le hip-hop comme, comme, comme tout, comme le sport. C'est positionner le hip-hop comme, les autres musiques. C'est positionner le hip-hop. Et positionner le hip-hop, c'est important. Nous avons, j'ai presque 50 ans, je suis à un an de 50 ans. Mais je suis très content de ma vie parce que c'est grâce au hip-hop que je suis content de ma vie. Il m'a tout donné. Tu m'as tout donné. Il m'a tout donné. Je transmets. On dans la transmission. On est, on est dans tout cela. Et c'est fondamentalement important. Maintenant, il faut énormément de félicitations à l'endroit de Tafa. Pourquoi il faudrait le féliciter Parce que c'est quelqu'un qui a toujours essayé. Et il ne faut jamais avoir peur euh, euh, d'échouer. La chose dont il faudrait avoir peur, c'est de, de ne jamais avoir essayé. Mon premier contact professionnel avec Tafa, c'était à l'époque Djouf Story. C'est-à-dire, Tafa, il sait connecter l'actualité à la culture. Et c'est ça, être intelligent. Être intelligent, c'est être capable de fair le lien. Faire le lien. Faire à l'époque, c'était les Ella Diouf. Il a fait le lien. Un moment, il a même travaillé à promouvoir les écrits de Serine Touba à travers un album. J'ai une belle anecdote pour ça. Je lui, je lui avais servi un Madial un moment. Yes. Et puis aussi, cette connexion, cette connexion reste encore fondamentale. Ce travail de pouvoir mobiliser tous ces jeunes, de leur tendre la main, parce qu'il faut tendre la main aux jeunes. Ils en ont besoin. Parce que ces jeunes, ils sont qui? Ils sont dans des quartiers difficiles. ils sont interpellés sur des questions quotidiennes, ils doivent soutenir leur maman, ils doivent faire tel, ils doivent tel, aussi aller à la rencontre d'autres, ils doivent rencontrer d'autres, ils doivent comprendre que ce qu'ils font a du sens, d'un point de vue social comme d'un point de vue économique. Et TAFA l'a compris parce que chaque projet de TRG ou bien chaque projet qu'il porte à un, euh, et il une cible, il a, il des cibles bien précises qu'il connaît, à qui il essaie effectivement de donner l'opportunité. Donc Tafa, ton projet est très important, indispensable pour la, pour la culture hip-hop. Tu mérites énormément d'encouragement. Tu mérites beaucoup d'encouragement parce que tu ne le fais pas. Pour toi, tu le fais. Pour tous ces jeunes, tu le fais pour nous également. parce que tu nous perpétues. Tu nous perpétues, tu nous, gardes, tu nous, tu en vie en donnant la chance effectivement à nos jeunes frères. Monsieur le ministre, nous te reconfions Tafa parce que Tafa fait du sens. Il fait du sens. Ce qu'il fait, il fait du sens. Et c'est très important. Donc, euh, kontaan nañu trop encore une fois et nous te savons très attachés à la culture. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. De la culture et du patrimoine historique, monsieur le secrétaire général du SOGI, madame Khoudia directrice des arts, monsieur les acteurs culturels, chers journalistes. <coughs> Aussi dire À l'entame de mes propos, je voudrais vous adresser à tous nos sincères remerciements pour votre présence à cet événement important. C'est très important et moi je dirais que c'est un événement historique. Parce que le hip-hop mi ngi dugg Dakar Arena, je pense que lu historique la. C'est en effet un temps fort de la vie des cultures urbaines que marque cette cérémonie de signature d'accords entre les acteurs du hip dans un contexte pour le moins particulier Malal wax na ko léegi le hip-hop à cinquante ans et dans cet espace hautement symbolique qui est Dakar Arena qui est quand même un temple je dirais en matière d'infrastructure g yóbbante la nga wax ko directeur général ne que la salle elle est magnifique et dire qu'elle est extraordinaire elle est simplement belle elle est, elle La signature de ces accords dans le cadre de la deuxième édition du Tarourab Galsen organisé par Sénat Vision n'est pas qu'un acte protocolaire ou conventionnel. Elle porte l'empreinte d'une volonté commune de promouvoir les industries culturelles et créatives, mais aussi de restaurer aux cultures urbaines toute leur place dans l'ordre des propriétés, de célébrer et d'impulser une dynamique porteur d'espoir au hip-hop à l'orée de ces cinquantenaires man xam nga sumay discours damay damay def wolof damay ci français investir dans ces industries culturelles c'est assurément prendre conscience d'une réalité qui se confirme au fil des ans contribuer à atténuer cette forte proportion vers ces jeunes et parfois adultes en manque d'espoir qui au risque de leur vie ou bien de leur santé physique ou mentale, victimes de plein de choses qui se passent dans les temps modernes, du trafic humain et plein d'autres, on peut en citer. Bravant par milliers au quotidien les aléas des océans ou des pistes de Nicaragua, a ngi dem Nicaragua juste parce que amatuñu espoir wala xëy na lu bari gisatuñu et voyage bu metti la parfois sans détour qui à l'arrivée au loin d'être li nga yaakaar ne loolu nga fay fekk mënoo ko fa fekk parce que da defe ne mën nga dem bitim bu fekk fa lu gën li nekk Sénégal te je pense que li gën fii la nekk Sénégal suñu Sénégal la suñu réew la ñi fi toog gënuñoo xàddi ñi dem tu vois je pense qu'il y de l'espoir et c'est à nous de de de maintenir cap boobu dafa am solo restaurer l'espoir par loo l'offre d'alternatives crédibles et adaptée aux attentes et aux besoins d'une jeunesse dynamique, soucieuse de jouer pleinement sa partition dans l'œuvre de construction nationale en assumant la plénitude de leur citoyenneté, de vivre au mieux des fruits de leur créativité, de talent et de leur espoir d'initiative. À ces paris optimistes que nous invite cette présente cérémonie, rehaussée par la présence du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, foofu dama fi taxaw lu tax ma taxaw fii nous avons fait le TRG show acte 1 daaw c'était au terme le ministre de la culture était là il s'est passé bon moins de 365 jours parce que matagul at je que kaddu yi mu waxante woon ak ñun yëpp kaddu yooyu def na ko suñu borom nag day wax nit ñi di seetlu ne yàlla du fay wax bàyyi jëf je que jëf moo ëpp solo loolu nous avons un ministre de la culture ci est à l'écoute Malal wax na ko léegi si Simon wax na ko léegi su ma ko waxee répétition la quoi et nous avons pas peur de le dire c'est un ministre de la de la culture boo xamante ni xam na ne il est là pour la culture xam na li tax mu toog fii je pense que loolu moo tax ñu maintenir ko ci poste bi c'est par rapport à des résultats c'est par rapport à des choses qui se sont passées je ne le dis pas que pour moi ou pour les autres parfois les gens dañuy xalaat sax ne le ministre de la culture ou bien la directrice des arts dañuy faral les cultures urbaines mais c'est pas ça aujourd'hui le Malax n'a pas un milliard de 300 millions à 600 millions ce fonds est arrivé à un milliard tey su Malax ne woon day wut un milliard zouk ne day wut un milliard salsa kabolov euh, euh, reggae tout ça xëy na ci ñun la tàmbali et c'est important parce que milliard boobu ñun xam nañ fu ñu koy def quand nous organisons un événement day nekk événement bu am plusieurs dimensions malal soutenir no ko léegi day am dimension sociale day nekk événement boo xam ne day am une dimension artistique mais aussi li ci nekk day fees muy espoir c'est pour ça que nous avons pris monsieur le ministre cette nouvelle génération c'est important parce que quand je vois Talbi nga présenté hip hop de Thiès boo ko waxee wax nga Taï Guissine wax nga Big Dal soo fi gisee Cap gis fi Las Melo gis gën moor que ma fa muy Mr Cage que muy Element de Parcelles que muy Authentic Zeus que muy BMJ que Matadi képp koo xamante ne bokk nga ci projet bi flambeau hip hop nga yëkkati téye ko pour jëme ko ci kanam ñun hip hop mënuñu la sant ba mu doy et je le dirai ici à la télé à la rajo fu mu ti nekk parce que nit nekk na ci post de responsabilité ba tàyyi ñu dénk ko ay responsabilité moom lu mu mën te def ko te du ko wàññi dara à la fin de la journée il rentre chez mënoon na ko def c'est un ministre accessible il était là pour le TRG acte 1 il est là pour le TRG acte 2 te su ko fi suñu borom bàyyee il sera là pour d'autres TRG et ainsi de suite ainsi de suite parce que dafa gëm projet bi bi muy ñëw dafa ànd ak ay ay ay autorités ànd ak ay directeurs ànd ak ay administrateurs parce que xeebaluñu suñu bës et c'est important parce que même ñun hip hop bi ñu suñu bës waaye di la là Simon est là Djibi est là Baxaw est là Fou Malade est là Rifou est là monsieur le ministre da may permettre ma taxaw ci Rifou pourquoi quand nous avons été reçus au palais Simon wax na li ci nekk yëpp xëy na j'aurais pu sortir et en parler mais su fekkente ne man dama bëgg a yéeg ci garab ku ma sànni xeer moo wàcc ci garab bi jël xeer bi fay kon du ma yëg nous allons rassembler pour le hip-hop il y a deux catégories de personnes dans la vie malal il a un spectateur et un acteur le spectateur dira sama yoon nekkul ci dara moo je regarde tout ce qui se passe autour de moi mais l'acteur xam na ne dafa am rôle bu mu war a jouer et que tout le temps dañu koy wax cette phrase que la culture est au développement que l'esprit est au corps c'est C'est important pour nous de lui donner de la lumière. Aujourd'hui, Malal, c'est du hip Mais lui, à lui tout seul, il peut manager le TRG Show. Djibi, Baxaw. Baxaw, su ma xalaatoon dem feneen sax day tàmm sama loxo ne ma dañuy dem Arena. Pourquoi? Parce que Youssou Ndour def na même si Arena c'est 18 000 places. Nous pensons que lu il porte pour faire. Je ne dirais pas faire mieux que Youssou Ndour parce que de faire mieux que <laughs> que suñu suñu mag la suñu grand la c'est c'est quelqu'un de formidable mais ni mu nekkee challenger loolu la def ci ñun ñun aussi ay challenger lañu moom tey bu ñu ko waxee ne ko le hip hop va à l'assaut de l'arène li mu njëkk a wax mooy booy ay guerrier parce que xam na du ñu nangu mbalax ñëwaat fii beneen mbalax fekkaat ko fi wala fekkaat ko fii ñun ñuy jóg a jël initiative def ko. wolof day wax peccu liir su neexee nday jaatee ci mbag yi à chaque fois que su cérémonie amee les gens font dañ lay préparer benn discours indi leen waxal lii jàppal préparer moi j'aime pas trop les li may bëgg mooy surtout improviser parce que lu jógee ci xol tout le temps day dem ci xol te lii la ñu waxoon première édition bi monsieur le ministre jeunes yi toog kenn ku nekk ci moom mbooloo mu ngi ci am topp ko moom rek mën noonu na défier cette salle y une unité tasaaroo ñu ci salle bi kenn moytuwul moromam nous avons eu nous des problèmes mais terewul bu pour le hip hop ñun ñëpp ay jóg taxaw e c'est important daaw ren danañ jóg dem añi kër Bamba ji Fall dem añi kër Black Mbolo ainsi de suite ñoom aussi la même chose parce que je pense que moytuwuñu xam nañu flambeau bi ñu leen war a jox dimension bi moom nous avons des autorités qui sont extraordinaires la rencontre des des deux airs par force la le rap et la république par force ñu wax nous ne pouvons pas être au Sénégal avoir un ministre de la culture avoir une directrice des arts et être là sur des détails et polémiquer sur des choses nous devons aller vers l'essentiel et l'essentiel mooy bu ñu daan wax rap Galsen dañ doon wax ñu ñoo mën Afrique tey la ñu rap yëpp yàpp rabu Mauritanie rabu Mali rabu Côte d'Ivoire rabu Guinée rabu Ghana rabu Gambie sax rek yem nañu donc yéen dafa am benn rôle bu ngeen war a def gars yi wax nañ ko ñun amuñu woon chance su jouer ci salle bi xalaatuñu ko woon sax c'est des infrastructures yu ñu teg état bi daf ko teg pour que des art des artistes ñu am ci euh, mën ci dugub mën ci jouer boo xoolee salle bi tu naa rien à envier à Bercy du Zénith du Olympia du Élysée Montmartre du La Cigale nous avons rien à envier salle yooyu parce que suñu salle moo dàq salle yooyu j'ai organisé le Bercy de Wally à 30 ans organisé naa ñaata Zénith li la waa Sojid di jox sooy dugg ci salle bi fii am na ba am fooy sangoo am na y a du tout c'est-à-dire lépp luy infrastructure war a am pour bitim réew defal nañu je pense que pour ñun la pour conclure ñu jox ñu aussi des opportunités wax naa ko pétulir bu neexee nday jaatee ci mbagg yi et le ministre la culture nous a accompagnés avec lui Aliou lu tax avec Aliou Sow tu ne peux avoir peur de prendre des initiatives tey soo ñëwoon ne ko le hip hop va à Bercy mu ne la lu hip hop va à Bercy soo ko ne le hip hop day dem Zénith mu ne day dem Zénith duñu reste des combats Dakar Arena benn palier la suñ fi jógee dañuy dem Olympia après Olympia da ngay dem Zénith après Zénith da ngay dem Bercy et nous allons euh, euh, conquérir le monde foofu la hip hop bi suñu génération bu bees bi mën nañ ko ñun seeni mag am nañu générosité ci jàppale leen et on peut le faire monsieur le ministre tey c'est une famille qui se retrouve ici c'est c'est la famille des cultures urbaines et nous avons envie que initiative yu mel nii di di di di gën a am mais mënul am sans la la presse parce que ñoom ñoo ñu jàppale Dakar Arena sori na metti na du kenn ci ñoom ku ñu laaj paas pour ñëw defe naa ñu lu ñu gëm hip hop ñoom presse bi ñoo ñu ko gën a gëmle parce que xew xewle ñoom ñoo ñuy jàppale. je pense que su ma fi nekkoon mën naa wax mën naa wax pendant une heure deux heures de temps te même forcément mënewuñu ko je pense que nous allons prendre des initiatives pour le hip hop parce que amuñu choix nous avons pas le je pense que Tafa Da Brains moo jiitu Tafa Sénar Vision Tafa Da Brains moo jiitu Tafa Effort Tafa Da Brains moo jiitu Tafa Marmite du Cœur moo jiitu ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite Malal wax na ko sur les initiatives que nu prenons Effort c'est ensemble force organisation et responsabilité c'est des femmes yu dajaloo woon ñëw seet si monsieur le ministre ñu waxtaan que nous voulons parler de l'autonomisation, de l'entrepreneuriat, de la santé de la femme, mortalité maternelle, tout ça, et ainsi de suite. Et nous souhaiterons faire une résidence séminaire à Paris. Pour la mobilité des artistes, il a acheté tous les billets d'avion pour les filles de effort. Nyom Djeila, Djeina, Amira, Djorbay. Djeina n'avait jamais pris d'avion dans sa vie. Et, euh, Amira, la même chose. Amira, Bimoudjogé, Paris, il a fait des choix, monsieur le ministre, aux mu demaat États-Unis loolu mooy naa mobilité des artistes moom xam na li ñu ko denk pour lan la la directrice des arts xam na li ñu ko dénk lan la l'administrateur du monument la même chose daf lay talonner on se retrouve à Ngayoxem pour faire la marmite du moom séeréer la dafa bëgg marmite du cœur ak yooyu xam nga mais daf lay talonner ci ñëw leen organiser le directeur de Douta Seck la même chose mala léegi la ma ko wax ak Simon bi ñuy dugg xam nañu nan la ñuy waxee ñëw leen jël ay initiative ngeen dëgg parce que salle yi pour yéen la monsieur ministre bi ñu génnee pare Rifo wax naa ko sànq dafa lu nekk la dégg opportunité la pour man ma wax ko parce que ay moromam laa dajale ils étaient vingt cinq ñoom ñëpp tolloo cachet Rifo a défendu le projet TRG farouchement farouchement Simon la même chose lu nekk la ñu dégg dëgg la même si dans la démarche les gens n'ont même pas compris lan la Rifou di wax il a juste voulu défendre un projet et un frère et ça c'est important détail bi Simon di wax léegi dafay tardel hip-hop daf ñuy tardel et nous sommes une ñun ñoo war a booloo pour lii ñu jëm ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin ku santul doomu adama munoo sant suñu borom ba mu gëm wala ba mu yegg ci moom ñun bu ñu al monsieur le ministre Aliou Sow defalee lu baax dañu koy wax que defal nañu lii defal nañu lii defal nañu lii bëgg nañu nag mu defal ñu lii defal ñu lii defal ñu lii te lépp si ci ci dialogue la ci communication la ci waxtaan la ci dal la il faut ñuy waxtaan il faut Sénégal ñu ñu xam mën a ràññee entre la personne et l'autorité ak l'institution yooyu yëpp benn bokk ci ak sa morom tey lu ñu wax wax suñu borom tappal na ko gratu ministre de la culture et du patrimoine historique moo xam na lan mooy passation de service il a été ministre la jeunesse ren il amul semaine de la jeunesse amul des initiatives yoo xamante ne dafa lié directement à la jeunesse te pourtant culture mi ngi positionné wu pour donner cet espoir là parce que jeunesse bi mooy dem euh, Nicaragua ñooy génn dem États-Unis ñooy dem feneen dernièrement on a vu des Sénégalais se se se se parader sur Maison Blanche doxantu gis ay nit biir Maison Blanche te tey ñun jeunes yi bu ñu duggoon biir palais doxantu avec fierté suba ñu bind fépp noo gars yi dugg nañu palais te pourtant Maison Blanche ay miir yu weex la palais bii ay miir yu weex la amul lu Maison Blanche ëppale suñu palais bi avec fierté dañu war a dugg biir palais dem ci jardin yi. wane la beauté de notre palais boobu parce que palais boobu ku nekk jaar na fa Senghor jaar na fa Abdou Diouf jaar na fa Abdoulaye Wade jaar na fa Macky Sall mi jaar na fi mi ngi dem keneen dafiy ñëw ainsi de suite ainsi de suite suñu fii la nekk donc suñ ma woowaatee suba pour TRG show damay dem du ma ci détaillé nag parce que Simon wax na ko li ma waroon wax yëpp Simon waxal na ma kon jarul ma koy wax mais juste rek ngeen comprendre ne initiative bu mel nii man mënu ko jël sans pour autant discuter avec les autorités indi 17000 ou bien 15000 jeunes quelque part dama dama dama impliqué dans quelque chose tey lu xew ci salle bi dinañ wax ak man forcément je suis obligé d' aller voir la gendarmerie la gendarmerie que mooy la police les sapeurs-pompiers je discute avec le ministre sur la faisabilité sur le le directeur général du SOGIC sur l' de la salle sur lépp bu fi ben nit amoon gaañu gaañu man la ñuy woo du ñu woo kenn parce que man maa woo mbooloo donc man ay jël initiative aller rencontrer les autorités jox leen seen cër waxtaan ak ñoom et ça c'est pas il faut que gars yi bañ a mélanger loolu mooy torpiller un projet et projet bii bu réussir daaw ñii ñëpp kenn joué ñeneen ñoo joué mais ren ñii ñoo joué il est pas sûr que déwén ñoom dañuy joué parce que ñeneen ñu leen gën a aay dañuy ñëw ainsi de suite challenge boobu état d'esprit boobu ñun ñoo koy créer ci jeunes yi ñun ñoo leen di may espoir et espoir boobu mooy tax ñun ñun fi toog le le hip-hop a perdu des soldats sur ces cinquante ans la nous avons perdu Lass Khel Njo nous avons perdu Bourba Djolof DJ Matar ainsi de suite ñi ci ñi ci génn àdduna yal na leen yàlla yërëm xare na àjjana bëri na tey ñooñu pakoti c'est avec fierté tey ku leen fekk fi leen nekk ne leen hip-hop dugg na biir arena ay plus de dix-huit mille personnes li ñu yaakaar ñoom seen xol dina set monsieur le minist encore merci monsieur le secrétaire général encore merci de nous avoir reçus ici nga waxal ñu directeur général du SOGEP suñu xel sedd na suñu borom nag moo xam fi ñu jëm dinañ ci am ndam wala duñ ci am ndam et am nañ ci yaakaar mais jaam ak pexem suñu borom ak dogalam mais gëm naa ni bu hip hop bi àndee ñu yéenante bokk ndey bokk bàyyi nekk benn bàyyi détail bu déwénee bu ñu fi ñëw wala dans deux ans trois ans sur une initiative malade c'est pour demander le c'est pour demander le stade bu ñu demander le stade dinañ ñu ko jox tout le temps dañ koy wax quoi maa ngi leen di tooñ ne leen Radisson Diamniadio suñ ko gisee rek équipe nationale Sénégal moo fi ñu seen Aliou Cissé gars yi ñu génn ci bis wala hôtesse de l'air yeeg waa Air Sénégal ak compagnie monsieur ministre dañu bëgg booy dugg Radisson Diamniadio dox ci wetu piscine bi ah ñëw def balance ñëw nekk ñu traité leen comme ni ñuy traité star yi nekk bu ñuy joué Zénith wala ñuy joué Bercy parce que ñun ñoom la ñuy am suñu rey rakk la ñu ñoom ñun ñoo tax ñoom ñoo tax ñuy fay ñoom ñëpp ay jàmbaar la ñu ñu ngi teg seen ay studio kenn ku ci nekk sa koñ ku nekk sa gox dimension sociale bi muy wax ci projet bi mooy lu ñu leen fay ñu jox ko seen ay waajur jox ko seen waa kër jox ko seen ay famille ay nit lañuy wax war dañu war a réussir ci hip hop bi aujourd'hui il y a plein d'initiatives quand on a fait effort monsieur le ministre nous a accompagnés sur des initiatives yoo xam ne ba tey on est en train de mettre en place la cité effort les fii de effort kenn ku nekk ci ñoom mën na am benn terrain boo xam ne mi ngi liggéey di cotiser di fay terrain boobu monsieur le ministre dugal ci lu am solo du ko wax du bëgg ñu koy wax la directrice du SAR ñeneen ak ñeneen demain nous voulons avoir la cité du hip pour que booy yëpp kenn ku ne am na kër ku nekk am këram su way wala mu dem rabi ba sonn mu ñëw këram loolu lañ leen bëggal te loolu pour ñu am ko il faut que ñu dem à l'assaut du monde def les plus grandes salles def Zénith def Bercy def loolu pour mën ci génn loolu mooy suñu yéene. j'ai été long moi et mon temps merci beaucoup à vous. mais c'était des paroles merci aussi à à tout le monde. mais à chaque fois xol laay waxee quand j'organise un événement wala ma dëgmal événement juste dernier mot dire à tout le monde tout le hip hop ku ñu wax ak ku ñu waxul ku ko dégg ak ku ko déggul c'est un appel solennel malam Simon Baxaw Djibi jottali leen ko ñëpp je n'organise pas mais nous organisons. le secrétaire général de la SOGIP, Madame la directrice des arts, Monsieur le général de Sénat Vision, cher ami Tafa, cher ami frère Fouguéry, <laughs> mais il ne pas être fou depuis des décennies là. <laughs> non je <laughs> c'est déjà une bonne avancée notable hein. Et eh, mesdames, messieurs directeurs et chefs de service, chers euh, amis du mouvement IBOP ici présents, chers confrères et chers consoeurs li may njëkk a def d'abord mooy féliciter leen ci seen initiative mais surtout ci limu jur mais aussi seen capacité de résilience dafa benn góor gu nekk Saloum mu boo bëggee def lu baax falaa bu dul il nga sañ say nopp la nga ñeme riir te doo tontu mu ne bu nekkee ne mbott mu ŋoox nga tàcc ko sa baxaw dina booy te doo tere mbott yi ŋoox te bu tool yi ñoree doo am dara loolu wolof ay wolofu Saalum la nag. wolof yu xóot la. cest à quand la pluie tombe et que les gens vont au champ il y aussi le croissement des grenouilles si vous mettez là à gérer ces bruits là vous allez abandonner votre champ et à l'heure des récoltes vous n'aurez rien et vous n'aurez pas réussi d'empêcher les grenouilles de faire du bruit donc il faut faire un choix le choix c'est se concentrer sur l'essentiel sa mission son travail et sa passion Et vous l'avez très bien fait. Quand on parle de TRG, ginnaaw dimension artistique bi mu jur mobilisation exceptionnelle du monde de la culture urbaine et au-delà nañu wax aussi ci li mu jural le monde la culture dafa wax na ko léegi république ak rab mënuñ bañ a wax si moo dafa leeral lu am solo il faut ñu koy fàttali lan mooy budget budget Sénégal mooy lu ñu dundee ñun di ko joxe. ñu ma ciy fay di def ay. grand DTF arena grand arena ak lépp boo demee léegi jëndi dara bu jaree téeméer da nga ciy teg dara mooy TVA boo jëndee oto bu jógee États-Unis bu bees wala venant di nga fay ay taxes di nga fay ay mutation di nga fay impo di nga fay lu nekk loolu la ñuy boole boo amee sa facture courant li nga war a fay net am lu ci yokkaat nekk TVA ndox même chose taxe yooyu li ñuy boole ak li ñu lebal suñuy doom war koo fay ak li ñu may ci suñuy àndandoo loolu mooy nekk budget Sénégal at bu nekk ñu ciy tabax di defar ay yoon ay infrastructure di fay ay salaire di ci faj ay nit di ci jàppalanteeg doomu adama yi di ma ci fay man mii sama bopp di joxe bourse joxe lépp mais li nga xam ne kay danga nga joxe bu ñu boole ko yow danga nga ci am wareef am ci sañ-sañ am ci loo am ci wàll googu wàll boo dul wax ak ki ñu ko dénk mais ni muy defeek ak yow nu muy xamee li nga bëgg nu mu lay gungee ci li nga bëgg jël li nga moom tekkiwul tayle sa bopp tekkiwul jaay sa bopp tekkiwul dugg ci loo xam lu lay timal lu lay tilimal la wala lu lay gàkkal la c'est ça les relations entre le rap et république daje boobu bi mu amee bu savez les sénégalais dañ ci kontaan mm-hmm. ci ça la dañ ko apprécier et c' est important le président de la République quand même mooy chef suprême ci lépp mooy dogal lépp ñëwoon a toog ak ñoom bu nekkoon lu ñuy lu ñuy làq wala dil la nag entre nous mais Tafa dans ce cas bàyyi ba guddi mu dem maire moom wala dem pale man ak moom wala keneen rek ñu toog waxtaan gérer li ñuy gérer kenn du kenn du tin wala yen ngeen yéen seen bopp sa ngeen ñëw kenn du ko xam mais rencontre boo xam ne télévision gi taxaw nii télévision c'était en direct rien n'est caché amul fu ñu door a gisee. ñëpp a ñëwandoo président ànd ak ministre am ak ñu mën a àndal ñu dajee waxtaan jox leen parole ñu wax <laughs> d'ailleurs bu ñu enregistré lépp ngeen dégg ko dégg nga riifu bu ñu jëlee parole mais à la limite day tàkkale ñëpp la tàkkale ba pare wax li mu xalaat wax cause Ibope ci li mu gëm lim ci teg nag mooy fa jël micro bi par force wax li muy wax président bàyyi la ko. boo waxee pare na ko mais yow nag président bett nga ma yow li ngay ñàngal yëpp nekk yow nii nga mel <laughs> c'était ça l'ambiance de cette rencontre là kenn waxu fa sa soxla bopp kenn jénli woo sa fa soxla bopp mouvement yi boobu lañ fa plaideel waxtaanee ko ñu wax si président jël ay engagement tey li ngeen am te yeneen dëkk amuñ ko bu boobu daje amuloon du am daje ak rappeurs yi mooy indi fonds de développement des cultures urbaines am daje ak rappeurs yi moo tax mu yokk fa la yemoon 600 millions seen daje yeneen ñaan wax loolu président tontu leen leen def naa ko un milliard de francs CFA et pourtant laa fi ñu toll nii rubrique budget ba de mën na wàcc budget initial bi ñu waroon bu yóbbu 600 million moo ci nekkat ajjuma bi passé bala ñuy dissoudre gouvernement bi boo ko yëgee dama directement au le ministre des finance boo koy gërëm bu baax a baax Moustapha Ba ci laa sol daal dem directement bureau fekk ko fa minuit trente lañ gisee mu ubbi machine am ñuy xool mu jël téléphone am ay collaborateurs ne leen budget initial bi li ñu def 600 millions pour le moment IBOP dañ ko dindi corriger ko jël fii jël fee def ko 1 milliard bu budget bi bu vous allez voir ça sera 1 milliard. bokk na li nga xam ne ni mooy nekk liñ ciy tegaat pour seen fonctionnement structure loolu am na déjà c'est bu budget Sénégal génne ba ngeen gis fonds de développement un milliard c'est vous bu ngeen fa demuloon wax ko plaider ko xëy na du am man sama en tant ministre pour ma doxal dëgg sax man dama leen soxla ah da ngeen ma soxla parce que bu may xëccul ministère de la culture ku nekk day xëccul sa ministère mais argument yi ngeen teg aussi dafa yombalal liggéey bi président yombal ñuy def yokk ko voilà un fait qui un résultat ci audience boobu ñu bëgg. yaatal ko am ko jox ko doole xam ngeen tey FDC yi fonds la bu ñu administré ci direction des arts pour jëm ko jox ko jëmm yokk ko doole président jël beneen décision ñu def ko fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives du nekkul ne dañuy jël àllu rapport yi jox ko ñeneen ñi de dañ ciy dugal yeneen yoo xam ne ni dañuy wane dayo ji mu am te wane ne industrie créative tey Sénégal bii nii amul ku ci jiitu ci résultat yu baax la mouvement yi en termes de résultats d'initiative et d'action ñu bëggoon boole pour ngeen wàll ñeneen ñi dañ defar bi ñu defaree décret yi defar lépp ci yoon da nga da def étude opportunité ay enquête jël sa temps jël lépp mu jël ay weer yu ne ci ministère yi ku nekk jox sa xalaat président mu ne non affaire rab yi moom sama mbir la andil ma décret bi damay yóbbu directement conseil des ministres le décret vous avez mu signer le décret portant création de sa fonds là day am direction générale am secrétaire général am conseil d'administration bëgg-bëgg yi mooy conseil d'administration bi yow jox orientation yi wax li ngeen def seen xaalis fii ngeen ko jëmee président mooy dama bëgg ñoom ñu yor ko le conseil d'administration nga consulter xool ñoom seen biir ñan la ñuy tànn ay góor ay jigéen ñu nekk ci biir fekk ci administration bi li ñu bëgg ñu koy defee noonu orientation yi cest à mooy rab ak république daje yor li ngeen moom xanaa kay moo nag entre nous il était plus simple pour ñun nga ñëw rek jël say collaborateur jël fii kee jël fee kee leen joxe gars yi dugg fi léegi yéenay nekk ci biir yéenay wax ne budget baa ngi nii nii lañ koy tegee léegi bu leen neexee dans ce cas sax ngeen ne même sax léegi day am rubrique festival TRG dañ ko woteel nangam ci conseil bi yéen a fa ne de festival nangam de dañ koy defateel nangam te lool wàññiwul dara ci lii yeneen structure ministère war a def jàppale leen ak ñeneen jàppale pour mu gën am doole voilà ce que le après l'audience mu des maintenant l'affaire des emplois pour les industries culturelles cent cinquante la xëyu ndaw ñi loolu li mu tekki mooy Simon Fou Malade mun am entreprise culturelle am Matador mun am entreprise am ay dama dem gis li ngeen di def am ay dix cinq trois jeunes jeunes yu fay liggéeyee ngeen di ñeexe di leen fay plus que leen fay ñii peut être ay 100000 ñii ay 150000 ñii 200000 ça dépend seen profil président bi bëgg naa ci jàppale ñenn ñooñu mais ñu bàyyi li ñu tànn seen bopp c'est-à-dire que dama leen di bind ngeen identifier yéen seen biir ngeen koy gérer duñ ci dugg ñun man li may bëgg rek après mooy ngeen jox ma ay liste ay structure ñi ko jiite ak nit ñi ma jël yónnee ko ministre de la jeunesse ñu xool comment faire les contrats loolu c'est comme comme état employeur lañ lay lañ lay jàppale di la fayale di la fayal ki nga war a fay teggil la yenn coono yi ak yenn jafe-jafe yi voilà le débat beneen débat bi ci ñuy xeex actuellement mooy naka la ñuy ba lempo yi mooy fisc ci entreprise culturelle yi ñu xool nekk lañ koy beralee loxo pour mu gën leen a yomb ci li ngeen di yor loolu lañ fa waxtaanee keroog ci kanam presse bi ñëpp fekkee amul xuumtoo amul nëbbatu amul leneen su le plan des accompagnements financiers c'est un budget du Sénégal bu ñu jox culture man mooma ko lu ma ci jël te fay du suma payoor moo ma ko yéen a ko moom mais initiative bi ngeen lancé depuis teeru bi mais tous les acteurs parce que xam nga la force de Tafa c'est de fédérer du jaxase du jëw moom li mu jàpp mooy si le moment il réussi il a réussi et ça c'est important man loolu laa ko respecté malal mi ngi nii malal fu ñu gisee fu ma ooyee xam nga lu may def damay tijjal sax parfois ñëw suma cérémonie remise de chèque mu jël micro bi fokkan ñu ko mais monsieur le ministre quatre boy yi dañu war a dem Burundi quoi ginnaaw suba la mais amuñ billet quoi ma ne ko man la yow tamit mais dama bëgg nga wax ci quoi ma ne ko d'accord dañ leen jox billet yi dama oo yi ñu dem lebi lebi xam nga lebi ay billet Burundi dafa sori te billet boo ko jëm dernière minute c'est ça malal malal c'est quoi c'est genre oh ma mais ministre mais telle personne moom xanaa bokkul ci affaire yi moom mosul dara ministère ah. te mu ngi def benn affaire ma ko d' accord ma la jox ma numéro naa ko mu ñëw ñu gisee quoi ñu xool qu' est ce qu' on peut faire non c' est à dire man style boobu lay respecté nit et voilà ce que ce train de faire Simon day ñëw oo la c' est bi son lay wooye de saa dañ bëgg nga dugg ci affaire promotion hip hop bi dans les médias telle émission sensibiliser nangam def affaire def tel tel mais bu ma gisee ñu mel noonu man personnellement. damay jaxasoo ak ñoom wax ak ñoom parfois nag c'est vrai dinaa xaw a injoignable li koy indi mooy lii xam ngeen lii benn téléphone la yor du ñaar maa ngi ko cent moom ak xale yu bëri 27 ans am na ko téléphone bi mosul changé depuis ma ñëw fi léegi ça fait bientôt une heure deux heures de temps mm-hmm. xam nga jëluma ko bu ma paree lu mu ndaw na yaa 300 messages mm-hmm. whatsapp linkedin facebook euh, tel euh, appel normal message normal après ma ñëw di kocc kocc ba 2 heures 3 heures du matin parfois heure la ñuy tontante mm-hmm. wax boo pare nga woote donc ku ma yónnee tontuma rek xam nga loolu looloo ko andi bala may ñëw j'ai fait deux heures temps ak ministre vice iranien de la culture ak cérémonie évaluation FESNAC ainsi de suite bu ma sañoon chaque da ngay am une minute du temps pour moom parce que on est là pour ça loolu la ñu président de la République sant loolu lay xaar ci ñun. et TRG mais amuñu woon au Sénégal lu ñu doon sax un grand festival des cultures urbaines. aujourd'hui un des événements far majeurs en tout cas fi ñu jëm góoma ne bu lu ñu réussir lii dina un événement bu gaawee noonu ci mobiliser autant de personnes dans la diversité créer aussi benn dialogue des générations the old generation meets the new generation c'est pas donné parce que vous vous êtes approprié moi ce que j'aime le plus comme slogan everything that is worth doing is worth doing well ce qui mérite d'être fait mérite tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Vous vous appropriez sa vous le faites très bien. Le gouvernement doit vous accompagner. Quand on parle d'accompagnement, ce n'est pas simplement le ministère de la Culture. Hein. Moi, mon rôle, comme je le dis, c'est seen directeur commercial, c'est un agent commercial, c'est un démarcheur auprès de tout le monde. Et on le fait, dès le téléphone au qui. Donc ça, c'est ce que je Par lui, on a même pour qui, le ministère au-delà de médias day jënd beaucoup de billets xool naka la koy joxe ay nit ñëw dañuy xool les maires naa leen contacter pour permettre à certains jeunes de l'intérieur du pays franchement seen maire yi offrir leen ay billets jël leen bus ñu ñëw fekkee ko beneen bi dañu war a fexe aussi ki nekk Kédougou wala Fongolimbi bi am téléem wala am téléphone am smartphone am mun a am occasion suivre ko en direct comme on a fait avec le FESNAC mais on va évaluer tout ça pour regarder ce n'est pas signé ñoom des conventions yu ministère war a fay pour ñu am benn pour ñu am ay direct du TRG de cette année là c'est très important Sénégal yëpp suivre ko xam ko en même temps mais mobiliser le maximum d'influenceurs pour également relayer ce que vous êtes en train de faire au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique c'est ce qu'il faut faire l'emploi war nañ ko jox tout le monde xëy war nañ jox mais c'est le bonheur la joie on peut réussir ensemble à donner ça à tout le monde et c'est à travers la culture et le sport et président il a créé ces activités là xam ngeen da ngeen tukki di dem fu nekk bu gan bu ngeen indi Sénégal yéen acteurs culturels yi bu ngeen malgré leen wax ji bi bëri yëpp bu ñëwee ñëw euh, stade fii ñëw Dakar Arena dem grand euh, grand théâtre dem ay musée dem feneen feneen dem monument voilà cest dire du ngeen am sa wala gàcce ci benn seen naataang bu jógee bitim réew fi ñu rayagum rek mooy côté morning bi comme ni ko moo waxee mi ngi ñëw. non day ñëw parce que vous avez le talent bu n'êtes pas complexé mais loolu li ko indi morning bi c'est pas uniquement son accompagnement mooy seen talent boobu feeñ tas c'est ce que Tafa a fait il m'appelle ak Jardin des danañ bëgg nga rencontrer waa effort mais kaw ñu ngi pare ban une heure quarante minutes ma dem madame Dieng une heure quarante minutes ñoo ngi woon sama bureau dégg nga. fa lañ nekkoon no c'est en tout une heure quarante minutes ah. presque deux heures presque ah, lañ ñu ngeen foofu di liggéey sur ce dossier là mais su ko defee day damay jël sama téléphone oo benn DG say DG kaay jaar fi ñu waxtaan xafoor ñëw par exemple ma woo keneen mu ñëw wala ma woo keneen wax ak moom ku nekk jàpp si et à l'arrivée on était content des jeunes de talent très talentueuses war a dem voyager c'était pas évident jeunes yu mos a ce sont les potentiels profils yu dem bañ a ñëwaat mooy ñu ambassadeur jox visa je dis parce que Sitapha xam naa du ci lu ci bokkul je signe ma signé lettre and yónnee ko ambassadeur ne ko ñii je porte garant jox leen visa ñoom ñëpp ñu joxandoo leen visa ñu dem def job bu nice ñibbisi le produit sera vu man am naa chance mos ci tuuti <laughs> mais affaire la de kooku bu génnee on verra que on n'a rien à envier aux autres Et c'est la même chose qu'ils veulent faire, que tu vas faire également avec TRG Acte 2, avec la nouvelle génération. Pareil aussi, résidence artistique, c'est un talent éclore, découvrir Fenen, d'un Fenen. Et j'ai oublié aussi, après ces rencontres-là, c'est que c'est résident pour vous, à Mindelo, au Cap-Vert. C'est-à-dire, il faut ngeen que vous sachiez, même si on a des wax sa xalaat wax sa dëgg dafa ànd aussi une vie de luxe et de bourgeois c'est pas la bourgeoisie des corrompus c'est pas la bourgeoisie des voleurs c'est la bourgeoisie des battants des bagarreurs des travailleurs des hard workers ku jógee ci zéro ba nekk hero tu as le droit de porter une montre chère de vivre dans un appartement cossu de vous rouler dans une belle voiture et comme je l'ai dit la normalité est que oto bu rafet kër bu rafet yére bu cher montre bu cher c'est l'affaire du sportif et de l'artiste pas du politicien forcément et loolu lañu bëgg defal ak yéen mais loolu defal ñu ngi si woon bi parce que talent bi mi ngi fi dialogue bi c'est déjà établi et loolu moo indi ba tey Sénar Vision yemul ci loolu dugg si région yi quand ils vont jusqu'à Joal le patrimoine culturel traditionnel c'est Mama Calabash mais mais pertinente kenn mosu leen xam Sénégal dafa les a organisé ak groupe am formé leen encadré leen pendant des moments et des moments ñu invité ñu foofu ak directeur des arts dem ak la maire madame la maire de le maire de Joal euh, ancien ministre du pétrole et des énergies c'était impressionnant le produit vous le verrez ci lool d'autres jeunes identifiés là ont été invités am seen cachet feneen ak le ministère man c'est cette façon de faire ruisseler les opportunités loolu laa gis mooy en tout cas je vous renouvelle l'engagement du ministère à vous accompagner pour réussir cette deuxième édition marché je suis heureux d'avoir été avec vous pour la première édition d'être avec vous pour la deuxième édition. Je vais même quitter le gouvernement, j'allais être heureux parce que le dernier acte que j'ai posé, c'est aller au ministre des Finances, obtenir l'inscription, telle conférence volonté présidentielle de votre, budget. Donc, loolu li des mooy ñafe ko fii esprit tool bi amu fi corrompu amu fi ku ñu mën a jënd amu fi mais man mi man sargaay dañu un jour a fait une cérémonie de remise des subventions des financements la am ku ma xool yónnee ma xool jël benn photo yónnee ma ko quoi ku may jox fi chèque quoi mu ne ma gis nga waa ji yónnee ma après beneen article waa ji tàkkale état bi di tàkkale ñoom ma ne ko léegi loo bëggoon wax fii non yaa ngi finance adversaire au régime ne ko yow saa tu rien compris ah, tu rien compris on est monde du bopp dans le monde des cultures urbaines le président ne fonctionne pas comme ça absolument li mu gëm lay wax li mu xalaat lay wax mais Fou Malade man dama jàpp ne sama xarit la bi ma nekkee ministre de la jeunesse di wër Sénégal ñàkkuloo naa ko sonnuloo ko. on a ak ñoom pacoti à l'époque on a été un peu mais déglu leen ko parfois dañuy tàkkale ba ñu ne waay waa ji fu mu bokk ñi xamul na non double jeu mais c'est-à-dire quand donc c'est-à-dire quand je suis Abien ah Aliou Sow du ko wax dëgg wala bu ma ko waxee dëgg dafay double jeu mais non mais quand le Sénégal est là ces intérêts sont là ñu mobiliser wu ko riifu xalaatuma benn yoon di ko moom waaye di même chose ban ban di lay dil ak ñoom on se parle on parle culture xool lu ñuy doxale c' est quoi c' est pas des jeunes et puis les rap là quand on parle de culture urbaine léegi sax je souris mm-hmm. moi je dis que ce sont les nouvelles cultures qui vont au-delà euh, tout récemment je pense j'en ai parlé avec Rifou ay jeunes rappeurs yu nekk dans les villages le village de Mabo Mm-hmm. mais je pouvais pas imaginer que mën ay Lour Escale. Lour mais quand je ñu ne dañu bëgg def xaw benn concert ma leen lu ngeen soxla ñu calculer leen wax ma benn montant ma leen non ça c' am ñu am nañ talent recevoir leen booy yi téléphone sax bu baax amuñ ko ma jënd ay téléphone jox leen ñu amul bu leen passeport li ñu wax ma leen non ay loué ay chain musique non je vous amène son et lumière mu ñëw andi leen tout jox leen temps d' argent. ma xool qu'est-ce que vous allez faire mais ce qui est impressionnant pluie bi xiin bi ce jour j'ai jamais vu un événement qui a mobilisé autant de personnes des ay gars yu takk charrette des milliers de personnes pour faire quoi venir écouter et suivre des jeunes rappeurs des villages c'était impressionnant c'est ça le rap ces jeunes là nga jox leen occasion dugg avion voyager découvrir feneen am talent Moustapha xam ne wax et je les xëy sax il ma tàkkale mais c'est mais ku la gisul la xamul ci loo nekkee ko nekkee tàkkale la yow fexeel ba mu ngeen gisee mu xam ne dafa juum ci yow. c'est ça mais parce que gisul parce que tàkkale la doo ak moom doo def li nga war a def mais da koy jox raison que tu n'es pas bon tu n'es pas tant que c'est pas tant que c'est naturel ça c'est pas le problème. wax ngeen ko léegi nii le rap wax ngeen ko tout à l'heure dafa jóge États-Unis contestation jaar Europe ñëw Afrique. le rap dafa même trajectoire en vérité mais à la base fii la jógee ko parce que le rap ak le panafricanisme dañu am dañ nekk ce qu'on appelle the consequences of the boomerang effect of slavery la conséquence de l'effet boomerang de l'esclavage dañ jël suñuy maam yóbbu leen par force Amérique ci plantation yi yenn guerriers yi comme ñu mu fu ñaxtu ne du amati dafa doy commencé def ay poésie ay chansons di bind mm-hmm. gaa ñu jóg commencé def ay conférences foofu def les premier rencontre États-Unis kon en Angleterre Oxford en 1900 États-Unis kon Angleterre en 1900 mu topp ci Paris Londres ak d'autres personnes donc Europe États-Unis Europe. enfin Kourouma indi affaire bi panafricanisme akra ñu jógee foofu def ko ab Koumassi donc fii la jógee dem fële comme bal teg sa nga jël ko doo ko ci mur bi bu bondé day ñëwaat mm-hmm. loolu mooy histoire rap. mu histoire panafricanisme c'est ça la vérité et vous le savez très bien donc nag sëñ bi lu ne fa mu jógee fale lañ ko gën a mënee tafa Fata wax na ko mu ne taasu mooy ndeyu rab dégg naa aji jaara di taasoog moom ñuy dóor affaire yi c'est-à-dire c'est ça qu'on veut et vous êtes décomplexé nous on avec vous on ensemble vous pouvez compter sur le président de la République vous pouvez compter sur le premier ministre Amadou Ba je l'ai rendu compte bi ngeen présenté projet bi ben dinaa def tout sensibiliser ko pour mu impliquer wu personnellement et pourquoi pas parce que c'est important que toutes les personnes yi bëgg sax réew mi war nañu wax nag lu ñu xalaat ci rab bi ak lu ñu ci indi ñoom tamit. ouais c'est la culture c'est quoi mais je vous donne aussi un conseil yéen ñi nekk fi tey dëkk fi mu toll na ngeen réfléchir ci li ngeen jàpp ne ñun les dirigeants politiques loolu la ñu war a def pour yéen ak pour le pays ngeen bind ko bind jël ko. yónnee ko toute personne bëgg jiite réew mi ne ko ñu lii la ñuy xaar ci yow loo ci loo ci loo ci xalaat yow moi j'ai bien envie qu'il y ait ce ce ce lecture croisée cette lecture croisée entre ñi bëgg ak yéen donc loolu bu amee rek bañ a jeng day tax ñëpp ñu dugal la culture au cœur du débat préélectoral électoral pour que suba ak ku mën a doon di nga doxal culture ba nga xam ne nii suñu doole foofu la nekk dafa je félicite Je renouvelle mon amitié, ma disponibilité. Euh, euh, fou malade, fou guéri. Simon, nous Rifou, nous Waïdi, nous Bahaou, euh, mon frère, nous Nifit. Nifit, vous m'avez compte connect les miens. En tout cas, une chose fascinante, chers grands frères. Euh, le mouvement IBOP, ils sont hyper beneen côté bu ma découvrir xamoon naa ko mais dama gën découvrir mooy seen capacité managériale en matière de création de gestion d'une entreprise kenn mënu leen ci si bu ngeen amee doole emploi dina yokk alal dina yokk des jeunes vivant leur passion dina am te jàmm day am nag waaye da ku kontaan mënoo ñëw ni parce que da nga manqué nangam mais aussi féliciter la directrice des arts vous l'avez bien dit je suis parfois fasciné par sa capacité comme dame de s'entendre avec l'essentiel des acteurs d'être à leur disposition mosuma ko sant leen ni ci lu jëm ci loolu bu fàtte fàttalu ko mu nga ñëw mu boobu li ci nekk bëri moom du ko fàtte fàttalu day ñëw waxal la ko mm-hmm. ba pare ñu xool solution parfois affaire day seere nag seere lool mm-hmm. mais yax ba jigéen ñoo ëpp góor ñi ñu mm-hmm. seen pexe ba affaire yi sotti ci jàmm te j'aime bien une chose elle ne juge pas les gens seen jigéen nga càmmeñam ngeen la jeune génération vous avez du pain sur la planche vos années ñoom Tafayen ñoom Fou Malade ñoom Dogoté ñoom Simon ñoom Xuman ñoom Awadiyin tous ces gens ils ont fait ce qu'il fallait faire et ils ont réussi une conversion exemplaire après l'art ñu ngi dans l'entrepreneuriat culturel en même temps nekk un ba pare nekk dans l'encadrement xool leen foofu réussir foofu maintenant yéen la chance que vous avez te ñoom amuñ koon ñoom seen temps à l'époque au départ benn télé amoon benn télé ñetti rajo amoon Sénégal réseaux sociaux amuloon yenn pratiques yi ngeen mën a def pour yomb affaire yomb amuloon ay whatsapp ay xawma la am amul loolu yëpp amuloon vous avez la chance am na les infrastructures que nous avons aujourd'hui ay Dakar Arena ay grand théâtre ak tout ça ça n'existait pas il y vingt ans laa wax ah. amuloon Sénégal même vous avez tout ce potentiel ay fonds moom amuloon sax ay financiers rappeurs moom subventionné ah ça n'existait pas donc cette chance que vous avez ak l'encadrement bi ngeen am ngeen ko boole di remercier particulièrement l'administration de Dakar Arena en commençant par le directeur général et mon grand frère Lamine. Ben, vous savez, je suis heureux de retrouver ici. Lamine, c'est mon grand frère, Manak Ablaye, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Ben, il nous a vu grandir au collège. Et, à Istanbul, en classe, en même temps, so, euh, muy grand bu baax bu sedd bu bien euh, et je sais que avec lui et le directeur général mu ngeen compter ci partenariat. très bien cher grand frère je suis très content. Merci. et je suis heureux de savoir. Partager. cet engagement en faveur d'un secteur prioritaire pour le président la République. merci li may jeexalee mooy les ambitions pour le mouvement amul limite mais nañ moytu benn affaire rek lu ku ñuy jaxase jaxase mooy nga gis ñoom tafaa gis président wala gis premier ministre gis keneen no bu ngeen gisee premier ministre xam ne ils vont dire ah non ñii ñoom dañu mel dañoo jeng dañu am fu ñu far mais mooy premier ministre même bu nekkee candidat vous devez le voir wax ak moom d' abord pour lim mën def ànd ak premier ministre pour aussi lim nam ma def bu ko doonee ku leen ci géej mu ngi leen di tooñ ku mën def dina na def ku am lay joxe na ko joxe saa bëggoon na ko beneen bi mooy mais man la cité de l' artiste dama ñëw théoriser ko gëm ko président di dox ci loolu mais ay pexe ngay def si j'ai la chance ministre urbanisme nekk Ablaye Seydou Sow directeur général bi yor affaire immobilier CDC nekk suñu xarit Xafo Touré mais naturellement je les pour xool qu'est-ce qu'on fair faire ensemble naka mun def pour am ay terrain viabilisé pour des artistes naka ñu mën a def ba prix yi ñu kase ko naka mun def ba ministère jël dara subventionné ko ba le bénéficiaire li muy teg du bari am dara loo xam ne moo ko moom après yu taxale wax naa leen aussi nag tabax bu leen xaal ay millions pour tabax ça je mun nga commencé chantier ak 500000 francs man li ma ciy wax li may wax xam naa ko. parce que tabax nga jàng ci. nu ngay def ndànk nag ngay def. affaire yu sotti la nga am suuf rek. boo demee léegi ba bu waat teg bouteille yi. Hmm. xool affaire bi war a nekk ay 500000 1 million saa yi hmm. ñaata tonne ciment laa ci mën a am da ngay tegg sa tànk <laughs> boo amoon ay ñetti dossier da ngay da ngay xool ak ñaar yi. ñu dem nga deseet benn bi mu jeex xam nga loolu moo dossier non uh-huh. <laughs> non yow bokk bokkoo ci man bokk ma ci ñun dossier kenn lañ ba pare non c'est pour vous dire da lay pousser nga économiser doxal uh-huh. pour réaliser benn affaire en un an deux ans trois ans nga réaliser ko donc man sa lobbying la en le faisant li may ragal rek mooy nga tàmbali après ñu va dire pourquoi kii mais il faut nga compter par un deux trois quatre mais l'idée c'est que si on lance le concept on voit qu'il y a quelques de terrain pour des acteurs avec tel commencé nañ doxal vous allez voir mi ngi noonu ah gis après gars comme ni ngeen suivre nañ conférence de presse bi voilà dégg ngeen gars pour wax dégg ngeen voilà Tafa Dabrène si wax gars pour wax nañ ah voilà le ministre de la de la culture tout le monde kenn ku nekk wax na en face nag ñu am kenn koo xam ne l'un des pionniers koo xam ne il n'est plus à présenter sur la scène musicale mais surtout sur la scène musicale culture urbaine mu nekk voilà Djiby Dabrène Djiby yaa ngi en live en direct sur TV. waaw asalaamaaleykum damay présenté may ah parce que booy gars yi <laughs> Jibi la Jibi Dabrels maa ngi leen di ñëpp di bëggee ñëpp voilà. Jibi ça te fait quoi en tant que pionnier en tant que référent ci bi ngay xool say jeunes yoo xam ne voilà yoon bi nga jaar fa lañ jaar ñoom opportunité tey jouer événement bu mel ni TRG show. waaw xam nga bu ñu xoolee ne tey euh, comme li ñuy wax rek am na ay dëkk yoo xam ne rap bi dee na fa. tey bu rab bi di dund ba bu ñu koy feetal cinquante ans moom dañ koy dañ koy en dañ ci njëkk a gërëm grand yi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk ba tey ñu nekk ci di ko téye ñun ñu ñëw après yeneen génération di ñëw ba tey cinquante ans bi mu tombeek beneen génération boo xam ne ñu ngi koy téye ba tey booy wax rap di ci boole Sénégal sa fait plaisir quoi nga fekkee loolu et puis mun ko assister coaché boo yi ànd ak ñoom ci événement boobu noonu bu doon suñu sago dañuy nekkaat xale ah bokk def événement bi ñun parce que vraiment salle bu mel nii tey day histo day bokk ci histoire comme tey bu ñu njëkk a ñun grand théâtre bu muy door a ubbi et tout ça c' était dafay bokk ci histoire dafay bokk ci histoire rap Galsen quoi ça fait vraiment Euh, fekkee affaire bi ba pare bokk ci organisation bi waaw. en un seul mot quelle la différence entre la génération d'hier c'est-à-dire vous et vos anciens et la génération d'aujourd'hui waaw mais fat xam nga euh, déjà technologie avant sànq maa koy expliquer Omzo daal nee naa suñu jamono ñun dañu doon dem di jëndi instrumental maquette ci cassette def sa maquette den saa mu dagg nga koy coller te léegi booy seen kër la toog defar seen bopp seen ay biit donc xam nga defar seen bopp seen clip defar seen lépp ñun suñu premier clip je me rappelle bi ñu koy euh, bi dafa tombé woon nag benn final coupe du Sénégal donc ñu doon dem xaar gaanu ki doon filmé RTS bu pare pour ñu dem defe suñu clip tu vois donc bokkul ak léegi nga xam ne booy bu la neexee tey tey tey ñu def son génne ko tey tey tey tey mais moo jamono moo toll foofu tamit ak avancement et tout ça. un mot envers le projet. voilà bon di di di wax Sénégal yëpp nañ ñëw ci événement bi. voilà ñëpp ñëw mu nekk mu nekk une grande réussite adduna yëpp gis ko quoi. Ah, su gënee baax ah lii aussi voilà bokk na si jeunes yi nga xam tey comme ni ñu ko waxee la nouvelle génération nga xam tey moom la TRG 2023 acte 2 bi prôné voilà BMJ King su gënee baax gën a ko yaa ngi en live daal sur Leral TV. en live mhm. daal TV. Eh, ñu bëggee ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nar a seetaan affaire yi yaa ma gën a xam di bëggee Sénégalais yëpp di bëggee ñi di bëggee hip bi tamit. you know what's le sentiment que que tu as ressenti que actuellement nii étant un jeune rappeur. Mm-hmm. parmi tant de jeunes nga bokk ci ñi nga ne tànn nañ la tey nga mën a jouer acte deux bi. Uh-huh. je pense ni que comme genre lu fi nekk la quoi tu vois comme pour man loo gis gars yi di jëm si ñenn ñi rek. c'est parce que ñenn ñi ñoo ngi fi di def dara quoi tu vois donc affaire yi loolu la quoi liggéey rek ba xam nit ñëw solliciter la si sa liggéey nga ñëw teew def sa liggéey quoi. la Biem yi nar a def le bi. ñëw def show comme rek. ñoo def show comme gars yi wala gars yi suñu deful show comme man man dinaa def show comme man you know what's noonu la demee. sa last word. yee mooy gars yi xam nga initiative bi rafet na du wax ni que ñu ngi invité gars yu bëri ñu gën a jël initiative yu mel nii et que gars yi war nañ mën a gën a jëlee initiative pour hip hop bi. yaa ma gën a xam te incha allah ñun hip-hopeurs yi gën a jël ay initiative pour suñu bopp. ñu am plaisir am contentement aussi voilà taxaw ak beneen ndaanaan ci ndaanaan yi du nom de Omzo Dollar Omzo naa yaa ngi lay wan dara sur Leral ok maa ngi lay delloo ziar merci pour invitation bi ñu ngi fi wala bopp. ayca <laughs> Omzo je pense que artistiquement parlant kenn dootu représenté Sénégalais yi ñëpp xam nañ la mais ban ban ban ban ban plaisir nga am tey teew ci ci ci TRG show acte 2 bi. Euh, waaw comme nu ma doon waxee si acte 1 rek man dafa am. ay nit yu ma par exemple si organisation bi am na nit yoo xam ne suñu may kóol dama leen di naan man bu leen ma relation yu ma am ak nit yooyu moo tax suñu may kóol dama leen naan noonu bu leen ma wax lan la wax leen ma lan lan lañ koy defee quoi wax leen ma directement donc moo tax moo waral sama teewaay et Rap Galsen organisé lii c'est ñun ñëpp am nañ ambition bu feesal lii suñu bopp rappeur bu nekk bu nga gis fii bëggoon na mu nekk moom moo organisé lii mais bu dee lii la yàlla dogal c'est encore mieux parce que gars ñu mbooloo et puis c'est très bien loolu dañ koy souligner donc euh, lu ñuy waajal mooy ñëw comme d'habitude rek tasaare dem tëdd nelaw surtout Omzo black à part on dañuy génn carrément voilà dynamique voilà TRG show ku la xam-xam la ci clash nga dégg hip hop bi ah. game bi yëngu na noono non Jean parce que la ci woo ñoo ci laajte lan nga ci mën a wax. lu sama yoon. <laughs> mais gars yi léegi melimaan ñoo lay laaj ñoo lay woo. léegi man amul lu ma def xanaa sama live lu jug rek dem clash koo xam ne defu ma dara man kenn tooñu ma kenn defu ma dara lu tax may clash sama yoon nekku si diw ak yow yow da nga romb ñaari nit di xuloo après yow nga jóge fële rek ne parce que yow da nga mun xeex da nga ñëw xeex ak ñoom sama yoon nekku si ah, man kenn tooñu ma man clash musul nekk loo xam ne dama ko doon def pour divertir ay nit wala dama doon amoon lu ma prouver dama doon défendre sama bopp rek dafa amoon ñu ma daan tooñ kii noonu la demee rek man tant que bu ma kenn tooñul du ma clash kenn donc euh, nag nañ clashante seen biir parce que dañu am ay problème te man damay clash ak nit parce que dama am problème ak moom mais pas parce nit dañ ko bëgg dañ ko soxla man soxlawu ma ko tu vois loolu loon aja merci beaucoup jaajëf beneen jeune la ci jeunes yi comme ni nga si génération bi nga xam te la Tapha tey war a tànn ñu spectacle le 23 fii ci authentique jeu de son frère non forum Kër Ndialo forum forum Kër Massar su ko dee baax nga authentique yaa nga lay mën dara ci Leral TV mm. waaw maa leen seen liggéey di la ziar <laughs> aja bi nga authentique pressentiment ngay ban sentiment ngay ressentir actuellement tey tey bokk ci nga xam tey voilà yéen a war a mën a jouer spectacle fii le eh, je pense que bokk si sax nekkul sentiment bi may gën a animé ah parce que même bu ma si bokkul woon juste événement bi rek ak fu ñu koy defee defe naa ne c'est une première mo am donc defe naa sentiment de fierté bi may animé loolu lay nekk quoi donc après c'est un challenge boo xam ne ñu tous dañ ko war a relever et c'est rendre fier grand bi tamit parce que c'est pas facile ce qu'il a réussi à décrocher. authentique fii ci Arena le 23 lan la public mën a xaar ci ñoom ci yow. non j'ai envie de dire comme d'hab mais je peux pas dire comme d'hab donc <laughs> ils vont yaa ngi en live woon Daara ci Leral TV ñu fekk la fii ci Arena pour suivre la conférence de presse voilà pour signer l'acte 2 de cet événement qui jouer le 23 incha allah ban sentiment ngay ressentir par rapport à cela. waaw mbégte comme ñëpp ah d'abord maa ngi nuyu ñëpp ñuy émission bi di la nuyu Jano sama frère di nuyu Nakata qui waaw projet bi donc maa ngi béggee ñëpp daal di leen wax ne kontaan tey lañ si am di accompagner événement bi bokk si artistes yi war a jouer donc mbégte la rek parlant de jouer lan la ñu war a mën a xaar si yow comme événement comme spectacle yoo xam ne nga a proposer le public ba gars yi mën def le 23 jugee seen saat ñëw biir arena pour uniquement suivre la yow. waaw ñi xam Mr Cash wala ñi ma xam man dinañ ñëw incha allah te xam nañ dinañ fi fekk lu ma mën yëpp lépp laay joxe incha allah ñi ma xamul tamit. c' est une occasion ngeen découvrir ma ngeen dem ñëw tamit assister si concert bi voilà y am na place pour ñëpp. un mot envers le promoteur qui est Tafa. waaw di ko wax bonne chance ak bonne continuation parce que affaire loolu la rek chance la ak euh, gëm acharné wu ci benn affaire donc bu nekkee noonu la koy doxalee yàlla na ko yàlla may ndam si affaire mi dugg yëpp incha allah. wallaahi mi ngi noonu jaajëf yëpp. aca mi ngi noonu ah gis après ma mel euh, Dabrens ah, Djibi Dabrens voilà ñu ñu recevoir aussi beneen jeune boo xam ne hyper talentueux from Akatsuku di Parcelles du nord Element borom 12 minutes freestyle doy waar yi bro la. delloo ziar bu wér a a wér. TV. waaw bon maa leen di nuyu xam nga di kontaan ci interview bi et tout voilà. Euh, di bu baax ban émotion ngay sentir moment bi nga toll ni en tant que jeune ngeen nekk ay jeunes yu bëri ci game bi nga bokk ci jeunes yi xam tey maanaam. hip hop bi ràññee nañ la parce que nga war a mën a prôné tey TRG show bi. waaw c' évident parce que ñun ku ñu xam-xam ne si liggéey lañ nekk quoi te si lañ yàgg nekk donc te si la ñuy mos a quoi euh, à chaque fois dañuy yeewu dañuy xool lan moo ñu mën a jëmal kanam lan lañ mën a lan lañ mën a def pour culture bi lan lañ mën a def pour musique bi lan lañ mën a def pour rap bi euh, loolu moo taxoon sax dèjà ma def benn freestyle 12 minutes juste pour pour yéegal niveau bi parce que pour man à chaque su amee benn step bu gars yi teg yow da nga war a ñëw tegaat beneen step peut-être tey dina am keneen kuy ñëw à l'avenir xam nga teg benn freestyle brut vingt cinq minutes pourquoi pas donc loolu la quoi. un mot envers le promoteur de l'événement Tafa et toute la team lan nga wax ban kàddu nga ko mën a jox par rapport à l'initiative bi nga xam te moo am na ko. waa balaa lool damay wax Akatsuki SN xam na génnee nañ benn album donc bu tudd euh, Œil disponible na ci plateforme yëpp am na ñaari vidéo yu génn am na yeneen yi ñëw. donc am na da am na ay rappeurs tamit yoo xamante ne nii war nañ leen njambaanaat loolu ci game bi la bokk ba léegi lool force la rap ak problème moo ànd day am loolu kenn mënu ko éviter quoi donc di wax na initiative TRG bi initiative bu nice la et que buñ sañoon mu am ay yu bëri quoi donc nga xam ne TRG du nekk Moustapha rek moo koy teg mais dina am yeneen yeneen promoteur yoo xam ne dañuy teg loo xamante ne nii day taaral hip hop Galsen merci beaucoup.